له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها الإخوة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نونغي مجل الله سبحانه وتعالى ديكو غرم ديكو باك دي ñaan borom bi jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc jéggal ñu suñuy bàkkaar noo ngi julli tey ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin xam ngeen ni noo ngi waroon a ci laqad taaba allahu ala nabi aaya boobu lu muy junj ba ci wa ala salaasati alladina xullifu waxoon naa leen ni ka aadatina suñu jubee bërëb boo xam ne laaj ñu leeral ko bu baax dañ ciy taxaw ba benn lënt lënt du ci am su ko defee suñu ñëwee rek dañuy mën a jàll dem léeg-léeg ñi xamul dañuy foog ni dañoo tibb ak tem rek indi fekk déedéet génnuñ ñu tafsir bi ñu ngi ci tafsir bi même su ma yoroon téere bi it noonu lay mel buñ ci àggee dañ koy war a leeral kon nag ñii foog ni dañuy prépare ay thème di indi dañu bàyyi xel façon bi ñuy tafsiree dama koy wax toujours di ko leeral te saa bu ñu jubee ci bunt bu mat a leeral rek dañ ci taxaw leeral ko ba dootul am benn lënt-lënt ñun loolu mooy sunu manhaj ci tafsir bi tey ñu ngi ñëw ci Kaab ibn Malik wa ma laqa fi ayaami hijrati muy Kaab ibn Malik ak jafe-jafe yi mu dund ci jamono bi ko jullit ñi embargowe ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi xam ngeen ni bi jullit ñiy dem Tabuk boobu Kaab mi ngi fi amoon na lu mu war waaye seytaane mën ko ak bakkan muy waaj di waaj di waaj ba farfam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ba Tabuk xool na laaj ne ana Kaab am na riwaaya yu ne ci yoon bi la mu am ñu ko tontu ne ko Kaab day ñaari yéreem rek ñoo ko fa téye jublu ci ay soxnaam gis nga saxaaba ba waxoon loolu Muaaz daf ko ni ragalal yàlla ñun xamuñ ci Kaab lu dul ragal yàlla kon jullit dafa war di seedeel moroomu jullitam lu baax ala kulli haal yonent bi sallallahu alayhi ñibbisi na jógee Tabuk yàlla dogal xeex mujjut am wa kafa allahu almuminina alqitaal loolu mu ngi nekkoon ci weeru rajab atuk juróom-ñeenteel ci gàddaay bi boo yaboo rek nga ni tabuk mooy dernier xare bu yonent bi préparé dem te mujjul am loolu daan nay dugal ci fan cinquante jours yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu ñëwee ba tabuk def na fa vingt jours am na lu bëri lu ci aju bu ñu ko doon topp benn par benn balaa ñoo tafsir dana yàgg kon yonent bi def na Tabuk 20 jours diggante dox bi dem ñëw aller retour bi def na ci un mois mu nekk cinquante jours ferme yoo xam ni ci la yonent bi demoon Tabuk yonent bi ñibbisi na ka aadatihi su tukki woon génn dëkk bi ak lu mu mënti doon bu ñëwee la muy njëkk a def mooy jubal ci jàkka ji julli ñaari ràkka nu yonteeg ña fa desoon njiit noonu lay mel bi yonent bi ñibbisee jullit yépp yëg ni waa Tabuk ñëw nañ yonent bi julli ñaari rakka ba pare daa di toog comme na mu ko daan defee ña doon ngantu lu ñëw ña waroon a dem te demuñu kenn ku nekk ñëw di justifier lan moo tax demul lan moo ko tee dem en tout cas ku nekk ñëw na wax sa lay teg Kaab mooy nettali mu ne ñëw naa taxaw ci buntu jàkka bi yonent bi xool ma muuñ bi ma xoolee muuñ ma ne ah li yi wax ba mucc mën naa koo wax ba mucc su ma ràbbee lay ba teg ko loolu kenn du ko mën a teggi waaye lenn rek ka ma tax a ragal yonent bi daa am ku koy waxal te kooku kenn mënu koo nëbbu allahu akbar muy borom bi kaab ne kon naa wax dëgg bi dëgg mosul yàq ñi koy wax mooy duaafu naas nit ñi am faiblesse walla ñu feebar ñoo jàpp ni dëgg day yàq mais dëgg musul yàq lu mu diis diis lu mu metti metti mënul yàq ndax yàlla moom mooy dëgg te moo bëgg dëgg suñ ko dundee yàq xëy na dafa am ñu ca mer waaye dëgg ku ca mer jubuloo kon dëgg bi yàqul que dëng te mer ci dëgg bi kooka moo dëng mais dëgg jamais du yàq Kaab nee na ma ñëw ah wax yonent bi ne ko man day wax dëgg yàlla amoon naa jur am naa lu ma war mais rek dama doon dem di xool tool yi di ñëw naan suba ma ñëw ndax fas wi ñaari fas laa préparé woon yu am doole lool yoo xamante ni gëmoon naa ni 10 jour su ngeen ma ko rawee su ma takkee dàq dinaa leen dab loolu daal moo ma jàpp ma naan suba non naa bàyyi ba suba non naa bàyyi ba ginnaaw suba garaawul dinaa leen dab maa ngi wéeru ci fas wu mën a daw ak it xanaa seytaane mën ma yonent bi ne waaw yow moom wax nga dëgg xool ci biir mbooloo ñu bari ñëw ku ne wax kii ñëw wax yonent bi ne ko yow moom wax nga dëgg loolu lan lay tekki mooy am na ñeneen ñu wax leneen ndeke Kaab wéetul ci loolu am na beneen mag mu mage lool xaw naa dugg ci juróom-ñett fukki at muy Muraaratu bnu Rabia moom it mu ñëw wax dëgg ak Hilaal ibnu Umayya moom it mu ñëw wax dëgg ñoom ñett ñooñu la yàlla ni wa ala salaasati alladina xullifu ñoom ñett ñoo aay boobu ñoom tànn nañu dëgg bi yëf yi paree yonent bi neen leen toog leen ñu toog bi ñu paree ci lépp yonent bi joxe ndigal ne saxaaba yi ñetti ñii bu kenn ci yéen waxateeg ñoom ba yàlla wàcce ndigalam loolu moom lañuy ñuy wax defe naa mooy am embargo xanaa bu kenn wax ak ñoom bu kenn jóg wax ak ñoom ci tayef ñoom ku ñu waxal bu leen tontu loolu mooy tekki ni na ngeen leen gàddaay ci wax loolu mooy laa salaam xaw ma laa kalaam laa salaam xam naa loolu lay tekki ndax ñoom ci seen bopp danañu nuyoo mais du ñu dégg ku leen fay kon yonent bi joxe na ndigal Kaab ne man jeune la maa ngi toll ci quarante un ans du mag waaye Hilaal ibnu Umayya ak Muraara ñoom ñoo ma mag ñoom bi wax ji amee ku nekk dem sa kër toog di jooy xam nañ ni musiba ñëw na ñu ne dañu koy fajee jooy ñoom daal seen kër la toog loolu moo tax ñoom sonn nañ waaye sonnuñu comme man ni ma sonnee ndax man munumaa toog te maa gënoon a nekk jeune man daal may génn di dugg ci nit ñi di leen xool di bokk ci seen jotaay waaye ñaar ñu taxaw di wax su ma nee tëll dem marché bi bu ñu commencé jaayante ñaar di waxaane ma ñëw waaw naka mbir mi ku nekk tourné dem yoonam loolu yàqu ah muy dund fitna boo xam ni laa yaalamu manaha illa allah nee na falaa yukallimu nii ahad kenn nanguwul wax ak man ñëpp gedd ma lan moo tax ay àqam dafa wàcc moom kaat amoon na àq ci bu nuyoo ñu fay ko amoon na àq ci bu waxee ñu tontu ko waaye dafa yàqu yeneen joxe ndigal ne bu kenn wax ak yéen kon loolu moom moo daaneel ay àqu kaab kon di nga ci jàngee ni jullit am na droit mu gàddaay defkatu bàkkaar ak defkatu bida jullit am na droit gàddaay defkatu bàkkaar ak defkatu bidaa dinaa ko leeral ca mujj ga kaat nee na may dugg ci marché yi di dox ku ma waxal dooma wuyu ku ma laaj dooma tontu ba yëf yi yàgg metti lool ci man ma mel ni ku dof jaaxle naa xamatuma lu may def gëlëm naa ndax damaa tàmmoon génn te léegi nit ñi foñ nañ ma nit ñi daw nañ ma mu ne amoon naa benn xarit sama doomu bàjjen la ñu koy wax abi qataada al ansaari kooku moom laa gën a bëgg ci nit ñi ginnaaw yonent bi moom it mu bëgg ma lool ñu nekk ay mbokk nekk xarit nee na sama xel jox ma ni xanaa bu la nit ñi bàyyee kay sa xaritu benn bakkan du la bàyyi su la nit ñi bàyyee sa doomu bàjjen du la bàyyi nee na ma dox benn bëccëg ba ci toolam ma tëb ñag bi bi ma tëbee ñag bi mu siggi te mu ngi toog ci garab gi xool ma ma xool ko ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullah ubbi sama kanam kom na ma daan def kaab ne fa wallahi ma radd alayya salaam nee na wallahi abi qataada tontuwuma fayuma sax nuyoo te moom laa gënoon a bëgg moo nekkoon sama xaritu benn bakkan tey nuyu naa ko génn yàlla tuñam yëngatuwut mu xool ma ni sëmm kaab ne ba tey ma ni ko yaa aba qataada ala taalamu anni uhibbu allaha wa rasulahu fa sakata mu ne ma laaj ko ne ko abu qataada mu ne am ne ko xanaa yow xamoo ni man ku bëgg yàlla yonentam la te man xam naa ne xam nga ko nee na abi qataada daal mel ni miir li ma wax daal tontu ma waaye faale wu ma waxaat ko ne ko anshadtuka allaha ala taalamu anni uhibbu allaha wa rasula maa ngi lay gëñee yàlla di la wérti yàlla xanaa xamoo ndax man ku bëgg yàlla lam dit bëgg ko koo waxloo nee na abu qataada noppi ba ci ñetteelu yoon bi xanaa mu dawal yërmande fa qaala abu qatada allaha wa rasulahu aalam baat bii rek la wax <coughs> mu ne ko loolu daal <coughs> yàlla rek a xam ak yonentam te démb dafa ko daan seedeel waaye tey munu ko koo seedeel lan moo tax munu ko koo seedeel ah ndigal li wàcc ci bu kenn wax ak moom comme ndigal wàcc na bu kenn wax moom def na bàkkaar bu mag bàkkaar boobu mën naa sabab yàlla bañ ko mën naa sabab yonent bañ ko loolu moo tax xarit bi ci boppam ne ko allah wa rasuluhu aalam muy tontu bu maanu su ko ne woon waaw juum su ko ne woon déedéet juum mu delloo ko ci yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam kaab nag nee ma ne nag mbir mi nag léegi nag mi ngi doog a sérieux nag fa faatat aynaaya rek ma taxaw nag rangoon yi sotti ko nag liñ ma embargo yépp aw ma problème jooyu ma fu ma dem bu ma nuyoo faale wuñ ma kër gu ma dugg kenn du ma faale ku ma waxal doo ma faale amul problème ndax jeune la waaye keroog ki ma gën a bëgg ci nit ñi di sama xarit di sama doomi bàjjan ku ko gis gis ma tey moo taxaw nanguwul wax ak man ah, jooy jot na nag nee na mu doog a jooy jooy yu metti xarit bi gis na ko yërëm na ko waaye lu ci mën mënu ci dara ndax ndigal li ci kaw asamaan la jóge foofu rek la mën a jóge waat wàcc jàmm am kaab jooy walbatiku ne dem këram ne nag maa ngi doogo a dund nag prison maa ngi doogo a dund nag nattu nee na benn bis may dox ñëw ba jege marché ñemewuma dugg ma romb jaaykat nit ñi di ma joxoñ benn par benn ku ma jàkkaarlool nga noppi ne jékki benn waay koo xam ne gaskatu teen la ma nga jóge ca xassaan ci waa nee na waajaa ngi naan man yadullu nii ala kaab ibn malik waajaa ngi ci marché bi naan ku may wan kaab kaab laa soxla nee na mi ngi yore benn lettre man yadullu nii ala kaab nit ñi di ko xool mu ñëw ba jege kenn waxul moom dañ koy joxoñ rek bu ñëwee ci kii mu joxoñ ke kee joxoñ ke allah sahaaba yi bokkuñu ñun bu doon ñun ñu violé ndogal lool ñun buñ ñu joxoon dogal loolu ñun ñu violé ko parce que ñoo di violé ay ay digal kon gis nga saxaaba yi li ñu rawee mënuñ leen ci dab muy ngëm gu dëggu te jullit ngëm gu dëggu la war a am yal nañ ko yàlla may wallahi yaa axi bu la yàlla wërsëgalee ngëm gu dëggu ci ngay yëg ci sa xol ne wéet nga nit ñi bugguñu ku gëm-gëm bu dëggu bëgguñu ku dëggu ci ngëmam soo dëggoo ci sa ngëm rek wéet nga nit ñi dañu lay jiiñ dangaa tàng ñii dañu naan dangaa ëppal kenn ku nekk dana am nu mu traduire dëgg googu la yàlla may kenn ku nekk dana am nu mu ko déggee loolu nattu la ci biir nattu yi ndax bu jamono demee ba nit ñi mu daaxana gënal leen naxante gënal leen naflaay gënal leen keroog ku nekk ci dëgg rek yaa ngi ci tumuranke nee na gaa yi joxoñ joxoñ joxoñ ba mu séen ma mu ñëw bi waa ji ñëwee ma ne ko maa ngi nii nee na waa ji jox ma benn lettre boo xam ni mi ngi jóge ci maliku Ghassan buuru Ghassan mu ngi tudd Jibillat ibn Ayham buur la bu fa nekk kaam ne ma jël lettre bi ubbi ko liir ko fa ida fiihi amma baadu fa innahu qad balagani anna saahibaka qad jafaaka wa lam yajcalka allahu bi daari hawaanin wala mudiica falxiq bina nuwaasiika kaab nee na ma liir lettre bi gis ñu bind ci ne waaw man day dégg naa seen waa ji dalaa toroxal dalaa bàyyi nit ñi balañ la yàlla tegu la fi pour nga torox pour ñu bàyyi la ñëwal ci ñun xassaan soo ñëwee ñu jox la alal jox la kër dimbale la dégg ngeen loolu intérêt boobu ni mu toll waaye ngeen xool saxaaba yi fu ñu toll ci ngëm qaala kaab fa qultu wallahi hada aydan la min al bala xoola xoola kaab allahu akbar ne lii ko ñëwal nee na beneen nattoo ngi yéegati sama kaw xaw ma def man maa ngi am problème nit ñi am embargo ma ci dogalu yàlla ak digalu yonent bi léegi aw ma lu ma metti ay yéefar ñëw naan ma kaay ci ñun ano ah bii balaa boo seetloo sax moo ëpp bi ma dal jullit noonu lay jànge ay mbir bu yéegee ci kawam gis nga axafu dararayn moom la kaab teg ñaar yi bu gën a oyof bu dee yow walla man nga ni non naa dem ñu jox ma kër jox ma ma lekk jox ma ma naan gate ma dalal ma jox ma alal waaye fii la yem fii la yem kaab bëtam jéggi na àdduna moom allaaxira lay xool moo tax mu yëg ni amul dara lu mu war a jaayee ngëm yàlla kaab nee na ma mer rek waaxu ci fuur bi fekk ñu ngi lakk mburu ma jël këyit bi na ko ci fur sànni innahu la min al bala lii lii nattu la yàlla na ma yàlla génn ci natt boobu allahu akbar kaab ne xool leen kaab ak ñun tey ñaata ngeen di dégg ci ay nit bal ay senegale ñuy jaay seen diine ñaata ngeen ciy dégg tey ku wër àdduna nga xam ne ni àdduna nekkee pantare tey dara umpewut tey dangay ngay fekk jullit bu tablee ci taabul boo xam ni sàngara mi ngi ci loolu du jaay diine jullit laa wax muy jaay ni dafa bokk ci jamono yi léegi di jaay ni dafa bokk ci nitu troisième millénaire kon toog ci taabul bu sàngara ya dara nekku ci ci ab jullit xool leen ko ci suñuy footballeur wala nga xool jullit yi dem Europe di football yi waxuma la sax toog ci taabal bu sàngara nekk waaye julli dañu koo fase woor dañu koo fase jaamu yàlla dañu koo fase mbokk yi li gën a yéeme du loolu mais tey suñuy jigéen ñooy sëy suñuy jigéen ñun ay jullit léegi ñuy sëy ak yéefër am na ci ñun sénégalais am na ci marocain tunisien ñu àdduna da ngay toog ba ci ak nga ni man ci ban àdduna lañu nekk léegi jullit bu jigéen di sëy tubaab bu ko leer ni yéefar la mais lan moo ko ci itteel ci àdduna mooy am-am rek moo ko ñor mbokk yi xool leen tey jullit yi liggéey ci riba ci riba nga xamante ni ci banque yeeg yu demee noonu. mu leer leen alalu riba la ñuy jëfandikoo moom la ñuy dundee ana ñoom ak kaab ana ñoom ak kaab mbokk yi kon kaab ku ragal yàlla la ku dëgër la natt ñëw na gaa waaye bi natt ñëwee daf koo yéegee échelle muñ jullit bu natt ñëwee muñ ko asbir wa ma sabruka illa billah muñal bu kenn tax nga muñ ku dul yàlla subhanahu wa taala mbokk yi kaab ne am naa métit am naa naqar su julli jotee damay dugg ci jàkka ji ñëw su ma duggee damay jéem a seeti côté boo xam ni su ma fa taxawee yonent bi gis ma wala ma gis ko ndax lee tay xelam dem ci man mu yërëm ma day xool côté boo xam ne leer na ko ni bu taxawee fii bu yonent bi nee nii seen ko mu dem lijjanti foofu taxaw fa dafa foog ni yonent bi fàtte na ko ndax mbir mi yàgg na embargo bi mi ngi jëm ci weer weer woo waxul kenn assalaamu aleykum kenn waxul assalaamu aleykum ci ab jullit bu bëgg àjjana loolu natt la kaab nee na su ma taxawee ci bërëb bu yonent bi geestoo ma xaw koo sàcc catu bët bu ma xawee fii ma sëgg nee na noonu lay doxalee waaye léeg-léeg su ma siggee yem ci yonant bi yonent bi xool ma du mooyu dana sama xol nag di di di gën a metti nag xam ne jullit ñi ci kaw suuf li gën a rëy ci ñoom mooy yonant bi jàkkaarloog ñoom moo gën a rëy ci ñoom tey nga ñëw léeg-léeg sàcc xool bala yonant bi xoolee du mooyu xool feneen loolu neexut kaab nee na damay taxaw di julli di jooy nee na dem na ba benn bis mu ñëw ci këram jël benn buum takk ko ci garab takk ñaari tànkam yéegal ba ci kaw dëpp boppam di jooy jabar ji naan ko li ngay def nii mbugal la muy jooy mu ne ko li ma nekkee mbugal boobu moo gën a metti bii di ma dal ndax jullit ñëpp bàyyi nañ ma ahabul xalqi ila allah bàyyi na ma sama xarit bi ma gën a bëgg bàyyi na ma nee na noonu la nekkee nag ba mbir mi mag 40 jours bi mu amee 40 jour nee na benn bis ma ñëw ci jàkka ji julli xaw a jege yonent bi yonent bi geestu xool ma ma foog ni dana yolomal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma sa jabar na ko sori mu yónnee ku ñëw ci man ne ma yonent bi nee na soril sa jabar ah beneen bi rëngu mbokk yi kuñ ko waxoon ci ñun nooy def soxna si ci néeg bi yow ci néeg bi yow rek moom rek ah <laughs> allahu akbar sahaaba yi duñ ñun soril sa jabar nee na ma ñëw ni yonent bi utalliquha ma fase ko yonent bi ne ko laa walakin la taqrabha waxuma la nga fase ko de mais bu leen séqati dara ci kaw la bu leen séqati dara ci kaw la ah mbir mi metti na Hilaal ibnu Umayya moom it mag la jooy naa jooy ba bët yi weex ba amatul rangooñ day jooy rekk su julli jotee rekk mu jàpp julli continuer waat di jooy xool leen jours kuy jooy lan lay jooy lan lay jooy yàlla daf ma mere yow góor yàlla mere na la te nga yëg ko te doo jooy góor saa bu takkee seen seen seene nga sa bopp ci jahannam góor yow góor yow laay wax saa boo takkee ceen seene nga sa bopp ci jahannam saa boo takkee lam na nekk lamu xaalis na nekk lamu wurus na nekk lamu sarax loo ci takk yow góor yàlla sànj na la allahu akbar tey ana suñuy góor tey da xool suñuy xale yu góor bal suñuy paa danga leen di xool da nga naan ñun ban senegal la ñuy dund léeg-léeg sax mën nga dajeeg imaamu jàkka bu xamul danger bi takk ko léeg-léeg mën nga dajeeg bilaalu jàkka bu xamul sax luy problème lam pour moom lam du dara mu takk ko te yii boo ci takk mbokk yàlla rëbb la mbokk yi yemul foofu léeg-léeg dañuy jëf lu tax yàlla mereñu ñu nga ni ma mooy lan yow góoru jullit dangay ngay wat sa sikkim te yonent yàlla bi da koo tere ba pare wax ci ay mbir même bu ci waxul woon baat bii rek daa war a tax yow jullit nga ragal a wat sikkim muy xaaliful mushrikin wuute leen ak bokkaalekat yi rek jaroon naa tax nga bàyyi sa sikkim ndigal ñëw ni bàyyi leen seen sikkim jàmmal leen ko ndax kat saay saay si mooy ñële di bokkaale di weddi yàlla ñoom dañuy wat seen sikkim bàyyi seen naanu yonent bi ne yéen jullit wuute leen ak ñooñu ñun islaam jullit lañu ñoo xamante ni lu ñële def te bokkuñoo ñun diine ñun dañ ko war a sori tey ci ñun ñan ngay gis ñu koy def tey ñi nekk ci kanamu jàkka yi tey ñooy wat seen sikkim bàyyi seeni mustaas ñi ci kanamu jàkka yi tey ñi ñuy wooyee borom xam-xam ñooy war seen sikkim bàyyi seen moustache mu mel ni mbir mi dañu naan yonent bi da nga ñu ngi ci troisième millénaire bàyyi sikkim moom yooyu problème terroriste la ñun dugg dunduñu yooyu mu mel ni jàmm ji jógewul ci borom bi subhanahu wa taala mbokk yi lu ñu dal ci suñu diine ñun la ñun ñoo fawee suñu diine ñun ñoo jaay suñu diine mbokk yi hilaal bi yonent bi joxe ndigal nañu sori seen soxna yi jabaru Hilaal jóg Hilaal mag la jabaram jóg ne xaaral ma ñëw nag wax ak yonent bi bi mu ñëwee ne ko yaa rasulallah inna Hilaalan shaykhun daa'i fa hal ta'zanu lii an axduma ne ko yonent bi Hilaal day mag la lool daanaka xaw nay naax ndax doo ma jox ndigal ma di ko toggal moom rek moo ne ci kër gi te mag la munul dara léegi bi yonent bi ne bu ñu jege seen jabar ndaw si da cee déggee woon kon waratu koo defal dara ndaw si ñëw di laaj yonent bi yonent bi ne ko waaw walakin laa yaqrab ki ne ko d'accord naa defaral ko ñoom kaab moom jabaram dootu ko defal dara léegi célibataire la buy dund ci biir kër gi moom moo boppam moo xam waaye hilaal li ko may dimbal mooy màgget la bët yi neexatul munta jóg dem ci ndaa ndaali mun ta jóg dem defi dara jabaram moo ko ko mën a defal yonent bi ne ko defal ko ay liggéeyam waaye lal bi bu leen ko fiq mbokk yi ndaw su baax mu ne wallahi ya rasulallah ma bihi min xarakatin ila shay wa wallahi ma zaala yabki mundu kaana min amrihi ma kaana ila yawmihi haada soxna si ne yonent bi gén ñaa ci yàlla kaab amul benn soxla ci àdduna mag la loolu rek la bëgg a wax Kaab amul benn soxla ci jigéen amul soxla ci àdduna dëpp bi nga joxee ndigal ba léegi fa mu toog lay toog di jooy Kaab noonu la nekkee xaw ma Hilaal barakallahu fikum nekk Hilaal Hilaal moomu am na benn qissa boo xamante ni mu daaxala ci biir soxnaam si yàllaa xam moom la walla du moom mais Hilaal benn bis ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk yonent baa ngi toog ak kibaaru sahaaba ñu julli tàkkusaan ba pare hilaal ñëw ne ya rasulallah raaytu rajulan ma amraati raaytu rajulan ma amraati ñëw ne asalaamu aleykum yonent fay ko mu ne góor ak sama jabar bett naa góor ak sama jabar yonent bi ne ko yaa hilaal arbaatu shuhud wa illa fi dahrik ne ko ah li nga wax lu rëy la de ñeenti seede mbaa ñu teg la jalt hilaal jaaxle na gis na jabaram di njaalo ndaw sii la wala beneen soxna la ala kulli al qissa bi lu wér la kii la walla mais loo ci mënti déggee rek ndaw sii di nga xam ni ku baax la mbokk yi yonent bi ne hilaal ñeenti seede yu bokkut fu ñu jóge ñoo mën a ñëw seede la ne gis nañ ko mu nekk dëgg su dul loolu ñu tënk la duma la ndax dangaa xas gor si jigéen ah bi yonent bi waxee loolu hilaal xam na ni mënta nekk diggante bi balaa ngaa uti ay seede la ñu nekk ñu pare ca kon la muy tekki mooy yàlla buggul ku siiwal jigéen loolu rek la mun a tekki ku ko yàlla nattoo ci ñun yàlla buggul ku siiwal jigéen bugg ko jullit dafa war a gore ci biir gore ci biti jigéen ndab la ndab la soo ko yoree bu xajamee raxasal ba mu set nga ubaat ndax loolu lañ koy def tey bu ñu fi jëloon bool def ci ñam nga lekk ba suur caxat caxatee ndawal yaag yépp sànni su keneen ñëwee du lekk waaye ñu jox la ñam nga lekk lekk bu teey lekk bu gore defar lépp ku ñëw xelam dana ci nekk lekk lan laa bëgg a wax léeg-léeg jamono bi ñuy dund jamono bu bari fitna la tere yàlla yi ñu nag moom ba ba ñuy dee du ñu ay malaaka ay nit leen waxuma ni nañu moy parce que nag dégg wax dafa baax lool waaye tere yàlla yi ñu nag moom ba àddunay tukki bi yonent bi waxee loolu Hilaal Saad ibnu Ubaada jóg ko nga xam ni daa fiiroon ba saxaaba yi di ko wooyee fiir fiir ñun nag ñooy guerrier yi quoi non non booy man fiiruma eh da ko yaa dee en góor nga ni fiiruloo yow torox moo la dal Saad ibnu Ubaada ne yonente bi adauhu maaha wa altamisu arbaata shuhada wallahi laa utihi illa sayfa <laughs> allahu akbar nga Saad li mu wax yonente bi ci ah, ma fekk góor ak sama jaar ñuy njaaloo ma bàyyi leen foofu dem di uti seede billaahi du ko def jaasi laay teg ci doxam <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa yi dafa ree ba bare ne unzuru ma yaqulu sayyidukum ne la xool seen seen sang bi li muy wax nii waaye nag mu teg ca ni maa ko gën a fiir yàllaa ma gën a fiir loolu dafa mel ni iqraar la iqraar lay nuru ci ku jàng arab xam ko moom nee na du ma bett sama jabar ak góor di ci seeti keneen su ma ko bettee moom jaasi ci digg bopp rek yonent bi ree ree ba pare saxaaba yi ree yonent bi ne leen xool leen ni mu fiiree man maa ko gën a fiir kon tey lu saad fiir yonent ko gën a fiir waaye yonent lu mu fiir saad ak yàlla ko gën a fiir gis nga loolu avant aaya mulaaxaana di wàcc la qissa bi amoon aaya mulaana xam ngeen ko comme ni ko ñëpp xamee walladina yarmuuna al muhsanaat ba mu jeex avant aaya boobu di wàcc lii moo amoon léegi nag bi aaya bi wàccee xukmu biñ ci jàngee bi ci jiitu mooy góor bett soxnaam muy njaalo imma bëtam la ko gisee boobu rek nag mooy àtt bi gën a dëgër su dee image duñu ko nangu su dee image duñu ko nangu lu muy tekki ñu ñëw jël benn portable wan la sa soxna muy muy njaalo kooku duñ ko tenir compte parce que machine la lu ne mën nañ ko ci def waaye yow yaa gisal sa bopp nit ñëw wax la it loolu doo ci mën a tënku ndax sëy dafa am ruux yow yaa gisal sa bopp bi loolu amee amoo ñeenti seede yow wax ci imaam dama benn benn waay boo xam ni saa bu ma ko xoolee damay gën a kontaan te xam ni li mu mën mënuma ko mu jafe la metti dal ko ci soxna lu metti dal ko ci soxna mu nëbb waxu ko kenn soxnaam xam na ni waa ji xam na ko waa ji xam na loolu noppi noonu la nekk ak soxnaam soxna si moo dema dem ba attantu ko ne ko man lii su ma ko waxul dinaa dee xoola jëkkër ji waxu ko mais soxna si moo toog ni jëkkër ji lii su ma ko waxul dinaa dee ndax saa boo ma xoolee sama xel ne ma loolu nga may xoolee su ma ñëwee fekk la nga wéet sama xel daf may jox ni ci loolu ngay xalaat ndaw si nekk na ku baax juum na gaa waaye nekk na ku baax ndax jëkkër ji ni mu ko noppiloo musiba boobu gis ko noppi continuer ak moom mel ni comme si rien n'était mi ngi mel ni dara amul loolu ci gor yombul mu ne ko ah, léegi nooy def mu ne ko il faut nga woo sa homme de confiance ma wax ko lii ñu dal man ak yow ndax ma mën a firéeku ma ne ko Oustaz Oumar Sall woo ñu woo ma ma ñëw bi ndaw sa dama ko tëj dëdd bul wax mu ne Oustaz bàyyi ma rek bàyyi ma bàyyi ma mu wax ndaw si moo nettali ba pare tiim ko naan ko yaa gore yow yaa ragal yàlla su yonente doon wàccaat ma gëm ni yow lay doon billaahi da koy wax ba ma jooy wallaahi ba ma jooy comme xale mu topp jëkkër ji di ko tagg di ko yëkkati xoolama loolu allahu akbar ci jëf joo xamante ni jëf bu ñaaw la mais yow jullit nga mën a muñ loolu suulal ko ab jigéen a jullit parce que xam nga ni kii jigéen la njuumte mën na koo dal seytaane mën na koo mën comme yow ni mu lay mënee mais xol bi la may ba nga nangoo muñ loolu noppee ko ngir yàlla borom xol bu rëy moo ko mën loolu ñu bëri ci ñun munuñ ko te dañoo waroon a fexe jéem a dox jëm ci mbir mu mel noonu wallaahi yaa xii bugguma sax di nettali xissa yooyu ba que daf may ndaw si noonu toppee waa yi di ko tagg di ko tagg di ko tagg jooya jooya jooya jooy ba gee di jot man ko waa léegi noppi ne man damaa bëgg a dem mu ne ma oustaz maa ngi lay seedeel ci yàlla billaahi wallaahi ba bu ñu muy suul ci suuf sama jëkkër bu gisatee ci man lu xaraam yàlla ma yàlla yóbbu safar su gisatee ci man wax ma ma bañ a def dinaa ko jaamoo comme ni ñuy jaamoo yàlla man ko déet loolu baaxul sëyal ko ba léegi xaqan mu ngi sëyal waa ji te waa ji di ku néew doole koo xam ni boo ko séenee da koy xeeb lool yéreem dafa gàtt yéreem dafa tilim day manœuvre nii di mais jabar jaa ngi gore gore lool lool mbokk yi jullit nii lay ajire ci yenn problème yoo xamante ni léeg-léeg dina am xoola fii muqaabilihi am koo xamante ni tuuma rek la dégg tuuma rek la dégg ci soxna suñu la may xam ngeen ni nopp moom ak boroom nopp moom ak borom soxna suñu la may biñ ko mayee soxna avant muy jël soxna si mu dégg ni soxna si day am na ku ko mës a mës a ci jamonoy xale ku ko mës a yow ñëwagoo ci sa jabar nga siiwal ko ci dëkk bi yëpp ba famille ci boppam mer lool am lu leen metti lool lan moo tax mu siiwal seen doom lan moo tax lan moo tax ba sëy boobu ixwaan yi dafa mujj tas ana lan mooy ngor billaahi léeg-léeg nit di nga def benn geste boo xamante ni yàlla dana la ci baale sa bàkkaar yëpp yóbbu la àjjana neexut mais lu neex lañuy ñuy muñ parce que wal kaasimiinal gayda gis nga mer jamono bi nga koy muñ ci ngay yéegee ci échelle u ngëm yàlla mais jamono bi ngay manifester sa mer keroog dof nga bu toog mbokk yi tey xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li mu wax ci jigéen laalla ihdakunna tatulu ayimmataha fi bayti abiha fa ida razaqaha allahu bi zawjin saalih tattaqillaha fii nee na mu mel ni baatu yedd la bu mu yedd jëmale ko ci kullu jigéen waaye suñu jamono bi ci la raw mbokk yi ñu ngi dund jahannam ñu ngi koy dund jamono bi mbokk yi yonent bi nee na jigéen kenn ku nekk ci yéen mën naa njànku lu yàgg kenn ñëwul effectivement kenn ñëwul tey bi jàng amee yu demee noonu ci la gën a bari nga toog sa kër papa amoo jëkkër chaque jour nga ni bu ma amee jëkkër chaque jour nga ni bu ma amee jëkkër yàlla may la jëkkër ju baax nga tegu ci kawam waxuma ko de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax la laalla ihda kunna tatuulu aymataha nee na léeg-léeg kenn ci yéen day nekk ci këram di niitu di niitu di niitu ba lakkale di niitu ba lakkale lan moo ko koy yóbbee dama taaru lan moo ko ko yóbbee damay jàng lan moo ko ko yóbbee dama bëgg liggéey lan moo ko ko yóbbee nangam nangam tànn tànn mbokku jigéen ñi wallaahi tànnkatu dàll carax rek lay mujje waxuma ko ngir xiir kenn ci lenn waaye gis nga jigéen dafa yàggut dafa yàggut léeg-léeg nga toog góor gu baax dikkal la waaye caprice moo lay jàpp rek ak yëg sa bopp di nga toog bis mu dem nga ni su ma yëgoon fekk yonent bi loolu la doon tere jigéen xanaa xamoo jigéen ñi boo leen laajoon kan mooy góor gu baax wallaahi ñu ngi nii bu du woon ak jotaay bi nga laaj ñen ñu wax la kuy góor gu baax xamuñ ko ñi ko ci xam bari jigéen xamul góor gu baax ñu bari ci ñoom dañoo jàpp ni góor gu baax daal mooy góor gu jekk góor gu siiw góor gu am ñett yi mooy mbaax waxuma nag jigéen ñëpp ndax kenn ak règle kenn du ko général waxuma jigéen ñëpp mais léegi léeg nga fekk ci ñoom ñoo xamante ni ni ñu jàngatee góor gu baax ki fi toog sëyul boo ko waxee dana naan góor gu baax laay xaar ñaata góor gu baax a ko romb te xàmmewu leen parce que la mu jàppee góor gu baax ay nax la loolu la yonent bi di bañal bépp jigéen lii yonent bi da leen koy bañal bu leen toog ci war a sëy ngeen teg seen sëy teg lay yoo xamante ni du lay bu diine nangu ëllëg da leen di indi problème rek borom bi subhanahu wa taala tey yow jigéen ki nga jàppee ne góor gu baax la ñu bari ci jigéen ñi dañ koy daw léegi dañ koy daw léegi jigéen ñu bari ñu baal ma benn jigéen wax na ma ne ma dëgg yàlla xam nañ ñi góor ñu baax ñi daal mooy ahlu sunna yi waaye ahlu sunna yi dañoo mën a digle dañoo mën a tere ah <laughs> booy ahlu sunna yi am nañu problème jigéen ñi xam nga ku ñu bëgg góoru bëy waaw xam nga ki yor jikkoy bëy bëy lay bëgg jigéen ñi góoru bëy lañ bëgg góoru bëy mooy kan mooy góor goo xamante ni fiirul ci diine toppatoowul sa sol toppatoowul sa dox toppatoowul sa wax mais góoru ahlu sunna boo maquillage ba faaru mën na la sëlmul sëlmul solal sa jilbaab demal ci xew la seytaane topp la naan la kii dalaa fatt kii di mu lay tere kii nangam kii nangam chaque jour ñu atte mais góor goo xamante ne boo faaroo mu ne boo yokk ko waaye hmm. yàlla nañu yàlla jégal xam nga dafa am benn aaya bu am solo ci suuratu mumtaxana moom sax lañu tudde saar borom bi dafa ne yaa ayyuha alladina amanu ida jaakumul muminat muhaajiraat famtahinuhun famtahinuhun yéen ñi gëm yàlla su jigéen ñëwee mu'minaat la wax lan mooy mu'min jigéen bu gëm mooy kan jigéen bu gëm mooy kii nga xamante dafa ñu raditu billahi rabban nangu ne yàllaay boromam mel ni waxtu dese nañ ndax xaw ma dañuy dagg xaw ma paasaw <laughs> ah? macha allah eh, jigéen ji nangu ne yàlla mooy boromam ay ndigalam moo supérieur bépp ndigal mais jigéen ji jaawale yàlla ak papaam kooku kooku xamul am na koo xam ne bu yàlla diglee du ko def bu papaam diglee mu def ko kooku xamul mun na nekk sax ci biir ahlu sunna yi mais jigéen bi nangu ne ay boromam muhammad mooy yonentam mu gëm ni bis dina ñëw yàlla fay jigéen jooju mooy mu'minaat léegi nag bépp télé bu ñëw sa kanam dañu lay bàyyi parce que yaa jëloon ceenu mu'mina takk ko yow yaa takk caqu ngëm bis boo takkee caqu ngëm war ngaa rus yenn mbir yi ñu la koy tere di ci sonn war nga ko rus yow jigéen lu mu ci teg muhaajiraat jigéen ñi bu ñu ñëwee te gëm ba pare gàddaay lan la ñu gàddaay man hajara suu gàddaay jëf ju ñaaw gàddaay wax ju ñaaw fas yéenee jaamu yàlla ci ni ko yonent bi diglee fas yéenee topp yàlla yéeg ni àdduna mii kër gu yàggut la jigéen ju mel noonu bu ko defee xoola ñaar yi mu wax ngëm ba pare gàddaay lu bon yàlla nee na famtahinuhunna famtahinuhunna na ngeen leen examiner ci ngëm gi ñuy wax dëgg la wala déet bëri na ku jënd ngëm fekk ngëm gi amul bëri na ku la jaay ni dafa gëm yàlla nga di ko gis ci njànqam ci melokaanam ci léppam ci coolam boo gisee jullit ngay gis mais boo takkee dem ba ci biir rek fëkk nga sa loxo lan moo tax parce que imtihaan amul gis nga famtahinuhun na mbokk yi bu la ko sàgganee de famtahinuhun waaw famtahinuhun léeg-léeg ñu wan la ngëm gu dëgër mën naa jooy sax mën na laa wan ngëm nga dégg famem naan day julli guddi day naafila guddi loolu ñu wax ci moom lépp bu duggee ci sëy bi respecté woo ko kii ndeke da nga koo examiné wul woon loolu mooy famtahinuhunna xam nga lu ci yàlla te allahu aalam bi imaanihinna yàllaa gën a xam mais dafa bëgg yéen selon seen xam-xam yéen ngeen nattu ngeen nattu kon mbokk yi euh, bi loolu amee hilaal jabaram ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa ko toppatoo waaye li nga wax dinaa ko sàmm Kaab ibnu Malik del si nee na ñu toog ba mbit mi am cinquante jours cinquante jours léegi mag na ñoom ñu ngi ci fitna ñu ngi ci nattu Kaab nee na benn fajar ma toog sama kër dinaa fi la ci ëtt bi xool leen jamonoy sedd saxaaba yi rek ñoo ñemee taxaw ci ëtt ci jamonoy sedd dinaa fi dem rek wala boog bu amee ti ñun bariwut nee na mu taxaw di naafila rek dégg yaa Kaab ibn Malik abshir nee na ma dégg benn baat nit kuy daw ci kaw fas baat bi moo koy jiitu ay Kaab bégal ñu ne abu qataada la doomu bàjjanam ndax dafa yàkkamti woon loolu am ñu ne du abu qataada ala kulli haal ummu salama moo ko yónni ndax ummu salama yàlla dafa def dafa bëggoon kaab daf ko daan may lu bari xaritam la woon soppeem la woon kaab nee na waa ji agsi bi mu agsee rek ne ma absir rek fa xaratu saajidan mu sujjóot sant yàlla bàkk yàlla màggal yàlla ndax moo ma emprisonné woon tey baal na ma nee na bi loolu amee sama xol kontaan rek ma daw ak samay tànk rek jëm ci jàkka ji bi ma ñëwee ci jàkka ji maa ngi fekk yonent baa ngi toog innamal muminuuna ixwa mbokk yi xarit bu kenn gisal sa morom lu ñaaw di ko siiwal gis nga baat baatu ixwa baat bu diis la bu kenn génn sa moroom ci diine bu kenn wax sa moroom lu koy tax a baat bi sa mbokk jullit da koy layal da koy utal ngànt ba preuve di am ka ab daw ñëw sukk ci kanam yonent bi bi mu ñëwee nag jullit ñépp jóg taxaw ñépp ñii di ma fóon di ma avalaat ñii naan ma jazakallah xeeran ñii di ma ñaanal naan ma hani an tey moom vraiment alhamdulillah yàlla baal na la xoola ma bàyyi woon nañ ndigal li bi alquran wàccee dellu nañ ginnaaw ñoom ñëpp nii la jullit war a mel jullit warul am choix ci dara mbiram daal mooy yàlla lii la bëgg moom laay def lii la bañ taxaw naa yonent bi kontaan lool kaab nee na bi ma ñëwee nag yonent bi xool ma kanam gaa ngi mel ni weeru bat leer nañ yonent bi muuñ yonent dafa tàmm muñ muñ moo tax di wax ak sa moroomu jullit di muñ gato bu ko dàq amul ci gato yi jullit dafa war di di muñ lu bari di kaf ak say moroomu jullit ubbi sa xol ci seen kanam nee na yonent bi kanamam mi ngi leer naññ ba mel ni daggitu weer fa qaala li abshir bi xayri yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk yonent bi mi ne ma kaab bégal bis bii moo gën ci bis yi nga dund bala sa yaay juree ba léegi ban bis yàlla ne baal naa la ñun kan moo xam ndax yàlla baal nañ ku ci am lu leer kenn yow tey kaab am nga ko kon bis bi gën a rëy ci sa dund bi la saa yi wasinee ba léegi yaa ngi koy doog a kam wala kaab jullit ñi ni ñu baaxee woon nee na fa qultu ya rasulallah amin indillah am min indik bu doon ñun ñu ne kii moo yara di ku waay mu ne yonente bi ndax yàlla moo ma baal wala yow yaa ma baal gis nga ko de jullit il faut muy jàng di xam yonent bi kilifa la mais du kilifa bu rëy bu doon suñu kilifa yi loo ciy laaj yow du baal nañ la rek mënoo ñaa bët bët gaal kii dafa yara di ko lu tax ngay kii xool leen kaat amin indillah am min indi yàlla moo ma baal te yaa Aysa waxoon na ko yonent bi waaw ah, ci qissatul ifk yaa Aysa ko yonent bi mais yonent bi ku modeste la yonent bi ne ko bal min indillah allahu akbar li mu bëgg la yonente bi bëgg yonente bi ne ko loolu moom ci yàlla la bàyyi koo taala wa tabaraka moom moo la jégg kaab nee na ma ni bi ah inna min tamaami tawbati an anxalia min maali sadaqatan lillah xoolal mu ne yonente bi bokk na ci liy gën a bégal di matal sama tuub alal bi ma am ma génn ko saraxe ko ngir kontaan allahu akbar tëj nañ la kaso génn nga kontaan nga jël sa alal defaat ngëm yàlla nañ ko yàlla may ida waqara fi lqalb saddaqahu l amal nee na yonent bi ne ma amsik alayka baada malik fa huwa xayrun la ne ko bul joxe lépp xaaj ko joxe lenn li parce que boo joxee lépp ëllëg da ngay laajuwaat rek nee na bi mu ko defee fa qaama talxa talxa jóg kottu ma akolaat ma nee na walastu ansaaha li talxa loolu dootuma ko fàtte mukk gis nga jullit bu nekk ci jamonoy bég nga wan ko ni yaag moo ma ànd mu nekk ci jamonoy naqar nga wan ko ni yaag moo ànd dootu la fàtte noonu la ñuy suuxatee ak ànd kaab nee na nit ñépp nag ñëw ku nekk di ma fóon ñii di ma ñaanal ngeen seetlu sew-sew bu nekk foofu nee na wallahi maa qaama ilayya min almuhaajirina gayrahu seetlu ngeen wax boobu maa qaama ilayya min almuhaajirina gayrahu ay gayra talha nee na waa muhajirin kenn jógul ku dul Talha kon léegi commencé na mu mel ni en day dugg parce que waroon na ñëw jóg akolaat ko lan moo leen tey jóg kenn xamul dañ leen di jàppal ngant waaye Kaab xaw na jàpp loolu su dul woon ak li yàlla tere jullit di jàppal moroomam kon loolu fitna la dafa mel ni waxtu wi jot na bëggoon naa dugg ci hijra dafa am ñaari façon gàddaay ba fukk am na gàddaay boo xamante ne dama koy tënk bu dee ci wàllu àdduna la amoo droit mu romb ñetti fan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa yaxidu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas loolu ci wàllu àdduna la amoo droit nga mere sa moroomu jullit lu ëpp ñetti fan amoo ci droit loolu na fekk muy jote jote àdduna imma xuloo walla beneen mbir su boobaa ñetti fan amoo droit ndax yow moomoo sa bopp di di conditionné sa bopp mais bu fekkee ni mbiru diine la gàddaay bi day continuer ba ka nga gàddaay bàyyi la tax nga gàddaay lu mel ni ahlu bida moo xam sa rakk la moo xam sa mag la moo xam sa mbokk la mi ngi def bida bu bir nga tere ko ko mu bañ nga hijru ko kooku mën na dem ay fan mën na dem ay weer comme li daloon kaar def bàkkaar day naan sàngara wala maasi day njaaloo wala muy def lenn léegi nag nga jël ñaar yooyu bàkkaar ak bidaa bu ñu àndee ban moo ëpp doole def ko bàkkaar bu mag ak def ko tu bidaa bu mag ñoom ñaar ko ëpp doole bal ku gën a yées ah mu ngoog loolu de la ulama usul atte ñun nag ki xamul kii mën nay naan sàngara di tërëf ci koñ bi kii nekkee ci koñ bi bidaa ñoom ñaan ñëpp mën nga leen gàddaay mais kii gën a oyof le mooy naan katu sàngara mooy gën a xam nga naan katu sàngara bi lu mu naan xam na ni sàngara daganul mais def katu bidaa bi lu mu gën a xóot xamul ni daganul moom day jàpp ne rek yàlla nañ ci yàlla dundal yàlla nañ ci rey yàlla nañ ci dee moom kay nangam nangam nangam rek moo tax mbokk yi bidaa bi yées la bidaa dafay màbb jëf beneen bi xool leen diggante yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam moom ak Zeynab yaay Zeynab dafa doon yar ay gëléem Safiya benn bi gëléemam dafa fakkastalu tànk bi am damm-damm ñu jatan ko mënta dem yonent bi ñëw ni Zeynab jëla benn gëléem aal ko Safiya mu war ko ñu dem rek yaa Zeynab ne ko ana uti tilka al te xoola wujj la ma jox sama gëléem yahut bii xoola ma baat bu dangereux bi Zeynab tuub na dugg na ci islaam soxna yonent bi la kon baatu yahut bi mu tugal xas lay nekk yenent bi da koo embargo 40 jours ci kër gi joxu ko ay toppatoo embargo yenent bi salla sallam embargo na ko 40 jour lan noo tax ndax dafa wax baat bu ëpp kon il faut ñuy peser yenn kàddu yi yenn baat yi li ñu tënk bëri na jeexul yàlla ñu yàlla jéggal jéggal na ala kulli xaal mais ñu jàngat ci ni Kaab Muraara ak Hilaal ñoom ñooy waa salaasa yàlla jéggal na leen incha allah kon yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla bëggal boppam yàlla nañu yàlla saxal ci ngëm yàlla yàlla nañu yàlla dundal ci ngëm yàlla yàlla tënk ci sunna rey ñu ci dekkal ñu ci lu mbon tas tas tas yàlla nañu yàlla téel boppam ci sunna hada wa sallallahu sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ba samedi bi di ñëw incha allah ñu ñëw ci tafsir bi biir